Euh, may wax rek ni tey sunu tànk yi tànku jàmm la sunu tànk yi tànku ziyaar la tànku ñëw feddali sunu kóllëre ak famille yu El Hadji def ko nag ci kanamu El Hadji ba Serigne Babacar Sy mi nga xam ni mooy xalifa bi tey mu toog fii ñu di koon donc di ko won ni ko parti socialiste ak ñi nga xam ni ñëpp ñoom la àndal ñoo ñëwoon di ko ziyaare ni ñu ko daan defee année yi ko jiitu yëpp ànd ko ak sunu secrétaire général Ousmane Tanor te tey mu làqu donc euh, euh, ziar nañu ko jox ko sunu ziar également pour toute la famille de El Hadj Malick euh, waxtaan également ak moom jox nañu ay conseils yu am solo ci wàllu nan la ñu war a yore nit nan la ñu war a waxtaane bu fekkente ni yow da ngaa jiitu nan nga war a téye également ñi nga xam ni ñoom ñoo fexe ba nga toog tey ci place boobu ñu remercier ci tamit euh, son excellence Macky Sall parce que moo ñu fa teg mais remercier tamit ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal parce que comme ni ko Tanor daan waxe benn nit kese bu àndee di dem bu yàggee nit ñi dootuñu ko yaakaar mais bu fekkente ni ñun ñëpp ñu ngi nekk uni ku ci nekk euh, li mu yéene boppam mu yéene ko moroomam et je crois que loolu du sax ci parti bi rek mais ci population bi yëpp la ku ne li nga yéene sa bopp boo ko yéenee sa morom rek réew mi dina avoir une discussion avec Nous sommes venus aujourd'hui à Chihuahuan comme nous le faisions à l'accoutumée. Donc euh, nous le faisions avec notre camarade Ousmane Canorien. Mais il se trouve que cette année, il, il est absent. Nous lui souhaitons le paradis éternel. Donc euh, nous sommes venus rencontrer le calife à l'occasion de la célébration de la nuit du prophète Mohammed, de la naissance du prophète Mohammed. Et donc lui présenter en tout cas les félicitations et les encouragements de, du Parti socialiste pour le travail qu'il est en train de faire dans le cadre de notre grande religion islamique, mais surtout dans le cadre de la Tariqa Tidjaniya. Euh, Serigne Baïsi Mansour, c'est un grand érudit, c'est un ami, c'est également un parent. Et à chaque fois que nous venons, il nous prodigue beaucoup de conseils, allant toujours dans le sens de respecter notre prochain, mais surtout quand on est un chef, de savoir être à la disposition des populations pour euh, donner satisfaction à leurs besoins. Donc la nuit du prophète, c'est une nuit bénite, euh, c'est une nuit également de prière et nous lui avons demandé de prier pour le Sénégal, de prier pour le chef de l'État, de prier pour nous-mêmes avec euh, les fonctions qui viennent de nous être confiées, mais de prier également pour notre parti et notre coalition. Je pense que c'est des prières qui, qui sont exaucées parce que nous l'avons senti dès qu'il a commencé à parler et à Voilà, donc euh, nous avons été bien accueillis par nos camarades de la région de Thiès, particulièrement du département de Tuaouam. Nous leur euh, manifestons toute notre solidarité également à l'occasion de cette célébration. Euh, c'est un appel qui vient à son heure parce qu'il a également parlé, je crois, à l'occasion de la visite du chef de l'État, des questions de sécurité qui sont en train de miner notre continent, plus particulièrement notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est toute la population qui doit être attentive à tous ceux qui viennent pour nous enseigner autre chose que ce que Malik, euh, Maouda Malik et ce que Cheikh Ahmadou Bamba et tous les autres érudits de notre pays nous ont euh, ce qui se passe ailleurs pourrait arriver ici. Mais je pense qu'avec l'aide de nos chefs religieux, avec la sensibilisation qui est également en train d'être menée, les prêches qui sont en train d'être faites au niveau des mosquées, nous espérons qu'il n'y aura pas une autre reconversion de mentalité, plus que en tout cas ce que Maodo et Bamba et tous les autres là nous ont appris. Et c'est la raison vraiment pour laquelle nous insistons davantage auprès de la population pour que la prévention euh, des conflits, la prévention de tous les événements, en tout cas nuisibles, qui sont en train de miner notre sous-région ne puissent arriver ici au Sénégal. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais dire que ça ne peut pas arriver au Sénégal. Il faudrait qu'on les mesures idoines qui doivent nous permettre de sensibiliser nos jeunes, de sensibiliser la population pour que les gens puissent également à chaque fois alerter lorsqu'ils voient euh, quelque chose de, euh, en quoi ils n'ont pas confiance.